ne daa nekk ci Aladji Malick TV ci wàllu sport euh, samedi ci suba ak dimanche ci suba nga xam ne programme yi lépp lañ leen di jox samedi ci ngoon ak dimanche ci ngoon bu demee ba résultat yëpp génn ñu jàngatal leen ko tegal leen ko ci taabal ji euh, dañu koy commencé ak équipe bi nga xam ne mooy Levante mi nga xam ne moo waral laale ak goney Barcelone yi nga xam ne match booba mi ngi am tey jii bu 18 heures 55 jotee ca Canal Plus euh, cinq ak Naples ma nga xam ne moo waral laale ak Fiorentina ak équipe bi nga xam ne mooy Liverpool Manchester City di daje ak match ba yéen a ngi ko mën a xaar bu 15 heures cinq jotee ci canal plus euh, sport 3 match Naples Fiorentina moom it mi nga am 12 heures 55 canal plus sport 1 ci kanam tuuti lay doon ak euh, équipe bi nga xam ne mooy Metz jamono ji may wax yow mi nga laale ak Bordeaux Bordeaux koy dalal euh, Monaco mook 3 ñi ngi football 13 heures Lens Nice loolu 15 heures lay doon ak équipe bi nga xam ne moo nekk Strasbourg mi ngi laale ak Lyon Marseille Montpellier ci kanam tuuti bu 19 heures jotee hmm?